ñu nekk ak stagiaire bi ñëpp ñu jàppale ci ñoom ñëpp toj. yaa ngi ko toj. yow mi ko wax nga boo commencé saaga. ci yow ba pare soog a dem waaw dégg saaga. saaga sa bopp boo nee na xoolal boo nee na comme man. yow daal boo ba tey boo ba tey ñun ñuy saaga loolu jaru ko loolu jaru ko. ku ma jege laa saaga doxal sa yoo xam ne kenn du ko man ku ma jege si.

arrêté leen ko. waaw waaw c'est pas nécessaire. xam nga fii kenn xamul kenn. non mais saaga bi seen gerte toog ci. déedéet saaga bi c'est pas nécessaire. taxal sa ndey dañuy rey dañuy rey. saaga bi c'est pas nécessaire bu mu wax yooyu. wax ci fii rek la wax ci fii rek la. non non jarul ko jarul nekk ban bi. da leen di bàyyi. jaru ko jaru ko on the block benn bee police lañ jëm après dañ fa dem loolu dong woon nga baax boo ko demee léegi loolu bàyyi dañ fa nekk daal. bàyyi lu wax yooyu bàyyi lu wax yooyu. Someone double park here. I want to move my car. Which one? The Toyota. My car is the white one, the white one. But the Toyota. The Toyota. Come on, man. Okay, no. That's yours. Okay. There is no legal document to do this. Nobody should enter. dégg nga loolu fii ku fi saaga kenn fii la ñuy diree fii New York fii fii diri. man naka ñu def fa lañ koy def saaga saaga rek sa bopp nga njëkk a saaga. yow bi di saaga yi dindi. sa bopp sa boo saaga sa bopp nga saaga. ñoom ñeme nga bu ñeme naa wax ngay wax. waaw arrêté leen lii ñëpp a waxal nag ñëpp nga wax ñëpp wax yow la ñuy wax man boo ma si boolee sa digg tuunu nday fan la ñuy def. fii la nga ko ko saaga fii nga saaga. wax ji daal yow da koy duul laa la bu fekkoon ne loolu la yow doo saaga. yow yow yow ngay góor